assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julit yi mbokk yi ñuy topp ci seen youtube bii di daara ay lingeer ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di fas yéene ànd ak yéen ci ay njëriñ yu am solo yoo xam ne nit ki dana ko yittewoo ndax lu koy amal njariñ la àdduna ak àllaaxira daaray Linguère nag fas yéene boole ko ci liggéeyam boole ko ci programme di leen ko laabire ngir jëm yàlla rekk tax kon yéen ñi nga xam ne yéen a abonné ci chaîne bi incha allahu taala na ngeen xam ne fas nañu yéene di ànd ak yéen ci ay njëriñ yu am solo yoo xam ne lépp rek day tënku ci القرآن الكريم السنة yonante bi alayhi salaatu wasalaam incha allah tey nag ñu bëgg koo tàmbalee ci koo xam ne dafa bëgg yàlla sun borom defal ko wërsëg wu yaatu lool defal ko itam alal ju bari lool defal ko nag mu barke ndax nit mën naa am alal ju bari te du barke waaye barke moom bu ci amee rek fa tabaarakàlla macha allah kon ku bëgg yàlla defal ko wërsëg bu yaatu lool defal ko alal bu bari te barke defal ko mbooloo jaaro bi maanaam jaaro lañ koy def xaatim bi ngeen di gis ñu bind ko gis nga ni ñu ko bindee noonu mbind mi leer na boo ko bindee ba noppi Eh, ayatul quran yooyu nga xam ne ñoo ko wër ci ñeenti wet yépp ci la bokk dangeen koy bindaale dangeen koy bindaale su ngeen paree ngeen teg ci baat yooyu nekk ci suuf muy allahu taxfalusun allahu tax allahu sun ba muy ñetti yoon ñetti yoon nga koy baamu soo paree nag nga defar lu jaaro xaalis nga defar lu jaaru xaalis dugal ko ci biir jaaro bi daal di koy takk incha allah muy njëriñ lu am solo ku ko mën a bind te yittewoo ko mën nga koo bind def ko koo xamante ni bëgg na ko te yàlla dogal jàppandiwul ci moom su ñu woowee ci numéro téléphone bi nga xam ne mooy affiché dinañ ko ko bindal incha allah fu mën a nekk dinañ ko euh, fexe ba mu jot ci ci kàttanu suñu birom moo xam mu nekk ci biir réew mi walla bitim réew kon tey loolu lañ leen andi woon tey ci njëriñ yi. ay secret yu am solo ñu laabiire leen ko def ko li wacci Illaahi taala ku ci bëgg ay leeral tamit mën ngaa woote ci numéro bi affiché rek incha allah kon ñu jox leen dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.